yàqu day jóg. Euh, ñu ñëw ci yow balaa ñuy dem jëli ji imam Khalifa Ababacar Ndiaye certainement mu ngi ñuy seetaan mu ngi ñuy xaar également euh, appel bi ñu ko war a woo bu ko defee mu daal di joxe xalaatam ci ci décision bi euh, Saa Wolof certainement am nga looy réagir par rapport ak Leila lu mu wax. waaw pour wax ko ne ko double nationalité rek la nañ ko pare ci Sénégal. parce que nee nañ il faut être. exclusivement sénégalais kon loolu moom jarul mu koy wax mm-hmm. beneen Macky Sall moo njëkk fal fii moom ministre bu am double nationalité ci réñam nationalité allemande ah s'appelle Abulo bu fekkee xamu ko ma fàttali ko ko. Mm-hmm. Macky Sall moo def loolu. loolu beneen waaw non ma ne. moo tax Sénégal réglé nañ ko ba pare Macky Sall rek moo fi nekk di def lu dul yoon. mais fi la fekk par la constitution bi réglé ko ba pare parce que di mi ko réglé moo tax Thierno Alassane Sall mën a porter plainte. Mm-hmm. Euh, mën a mën a mën a ñaxtu jëm ci conseil constitutionnel ñu rocc ci Karim Wade. Mm-hmm. moo tax euh, Rose El Wardini te jàlloon na ba pare. ñu mën ko cee jël ma nga ne nekk ndungu sin mhm. kon problème boobu yaakaar naa problème boobu rek réglé nañ ko mhm. maanaam wax pour wax rek amul sens parce que problème bu amul woon nga mën a taxaw ne nañ ko fi indi kon loolu yaakaar naa ñun ñëpp ci bokk am beneen bi mooy booy kaas euh, mhm. Diomaye ak Sonko nga koy wax di ko di ko méngale ak euh, Abdoul Aziz ak Gazwani ñàkk a xam la loolu typiquement Amadou Ba et Macky Sall peut-être que mën naa am loolu la ñu ragal maanaam problème bi man bu ma mënee benn responsabilité. donc situation bi mu wax pour euh, Sonko ak Diomaye. mën nañu ko retrouver voilà ñooñu amuñ euh, amuñ problème Diomaye Sonko. Mhm. Sonkoy Diomaye te loolu sax moo tax ñoom seen plan yëpp yàqu. Mhm. parce que dafa mel ni euh, li muy ragal ba di ko ragal ci Gazouani ak Abdoul Aziz dafa mel ni moom la Macky Sall ragaloon. Mhm. ba ku mel ni Ousmane ku mel ni amalu Ba. nekk candidat ba pare mel ni bëgguñu mu. kii ñu ne ko am te bu ko sa loxo bi laal maanaam li ma ci jublu mooy am sa te bu ko sa dafa mel ni boo ko xoolaatee jàngat ko benn jàngat day mel ni Karim wàdd bu jàlloon. mën naa nekk suwaawu Macky Sall loolu bi mu amul ci la ay bëgg doon wuri sarax loolu moo fi nekk ci ci ci ci ci problème beneen bi muy dafa wax ne ay ay député opposition bi. dañ ci jàppale dañoo bokk pour report yaakaar naa cent vingt députés ñoo voté pour. Mhm. cent vingt députés boo ko génnee ci euh, nu mu tuddati soixante quinze députés. Mhm. du moom lañu. boo ko 82 83. waaw 82 83 75 députés. Mhm. soo ko ci génnee lan mooy des ci ci ci boo génnee 120 députés yaa ngi dese loin. lu bari lu fa des. léegi kon da ngay ñëw 120 yi nga joxal jëlal ma 83 euh, yu 82 yu APR plus bokk gis-gis mooy Moussa Diakhaté benn lañ bennoo lañ léegi muy 83. nga ñafal ma ci vingt cinq yi PDS am noqalaat ma ci 14 yële euh, Khalifa am yaa ngi am 122 députés kon ñoom rek seen seen cëggal guy léegi kon waa euh, Pastef ak ñeneen ak ñeneen Thierno Alassane Sall ak Pape Djibril Fall kaccat ko ci loolu du jàll. mënuñoo indi diversion na di di di di bëgg pour opposition bi am beneen bi li muy wax mooy opposition bi bañ ko opposition bi ñoom ñëpp candidat yëpp y compris même Anta hmm. ñëpp a nga daje tey ci seize Déthié Fall di wane ne ñoom suba dañuy campagne parce que campagne électorale bi tey la démarré maanaam la ko tëgg maanaam sëy la ndaw si décision njiitu réew mi fu ma ne mi ngi mel ni ndaw si hmm. ñu ne ko nopp naa la dem ca jàkka ja mu ne nangu naa ñu takk sëy ba pare lay tas sëy bi dépendre tout ci moom keneen lay dépendre soit ay bàyyam ak kilifa yi waxaale looloo dal Macky Sall la ci li nga xam ne moom la jàpp àpp bi ne vingt cinq bi ak ñu war a dem ci ay élection mënatut a cee dellu ginnaaw du moom du yellee fam moom moo war a tax mu dellu ci ginnaaw ak yu demee noonu mm-hmm. xam nga buñ bëggee dund ci réew mi dañu war a dund ci dëgg parce que wax pour wax rek parce que réew mi dangay gis ne dañuy bëgg taamu parce que ñun ñëpp Sénégal daf ñu màgg te kenn ku nekk da nga layoog sa loxo ndeyjoor ëllëg que nga topp Macky Sall wala nga topp Ousmane Sonko wala koo mën a topp wala defoo politique li ngay def danga ko war a teg ci dëgg du affaire ay alawle wala wane ne maa ko sañ maa ko nangam beneen bi nag muy côté taali kër man gis naa ñu bari ñoo xam ne bu ñu sañoon ñu taal seen kër ci jamono yi émeutes parce que boo taalee sa kër prétexte la ci ñu réglé waat ko xañ na sax nga am sagaru oto boo xam ne même pas deux millions après nga am rafet non dama ne mën naa ne xam nga voilà dama de dama ne déedéet damaa wax ne taalum kër wala nangam ci laa ñàkke nangam lu nekk mën na nekk loolu xam nga xam nga wax ji man dama fu ñuy fu ñuy feesee kenn du fa jàmbat góom damaa jàpp ne ku jur barki dem lañ jàpp ay magistrat di leen saaga damaa jàpp ne ku jur la nga war a xëndi du li nga ñàkk alal wala osan bu tàkk man du ma gis ay bakkat yu ñu rey xam nga nee na bu doon Ablaye Wade nangam Ablaye Wade 23 juin moo gënoon a metti fuuf gënoon koo jar bi ñu déparé te dafa dellu ginnaaw te lim fi nekk loolu ñaata nit a ci faatu 13 morts mhm. c'est trop même benn nit tey lii am fi muy 2021 euh, ay wakkan faatu lii amaat lu gën a garaaw am ay nervi yu nekk ci ginnaaw police sol numéro 9 di dàq di jam di tiire ay image vidéo amateur wane ko télévision Le Monde ak F24 ak euh, France vingt 24 ak ñoom ñëpp taxaw di ko wane di wane fii 9 bi duggee ñu gis ay pick-up yoo xam ne coopération allemande mooy ñuy kii ak euh, kii boobu yi nga xam ne voiture yi nga xam ne dañu koy faral di may yu weex yooyu nga xam ne ci wàllu coopération ci lañ koy may mm-hmm. ak yu demee UNICEF ak yu demee noonu ñu gis pick-up yooyu xeet yooyu ay ay ay voiture différent L200 cent yeneen ak yeneen ay pick-up ñu jóge ñu topp leen ci li filmé wane ba ci siège APR kon bu ñu doon wax euh, parti bu ñu war a dissoudre APR moo ci war a jiitu Ah, ah si image yi boo demaatee ci kii da nga ko gis sam nawle kii boobu yow tey boo ko defoon fii teg télé di wane mu amaana doo dootoo doole mais ay mm-hmm. tubaab xale yu ndaw ñoo taxaw décortiquer ko benn par benn ñu jël lépp sumbiku ci problème bi mooy xam nga ñoom dafa am loo xam ne am na ci Sénégal mënoon a tax loolu mooy crise li amoon ba nit ñoo ñu faatu laa loolu mën nañu wax ne am na crise tey fii amul lenn lu doxul wax na ko magistrat bu buñ jàpp ne dafa ger yóbbu nga ko ci yoon maanaam dem nga pour ubbi ci enquête parlementaire mm-hmm. gaa yi ngi ciy dem moom mu ñëw porter la plainte far maanaam dossier bi da nga ko doon lijjanti ñu ne la waaw fay farkaay nangam léegi loolu doo dem nga lijjanti koog moom bu dee dañ koo ger nangam ak nangam mais loolu mooy taxawal suñuy élection te yow Karim de mi naan dañ ko reporter di jéem a jaayu fit te moom dañ koy manipuler 2019 dañ ko dañ ko ci génne woon pourtant boobu sénégalais yëpp xam ne dañ ko tooñ bii nii moo kàcc ay kàccam moo taxaw waat sur l'honneur déclaration sur l'honneur ne benn nationalité képp laa am ñu toog tuuti am lu ñu waxal maanaam même li mu giñ magistrat yi sax boo paree nga wax ah, boo bi bi ñu demee ensemble déggatoo leen ñu léegi ñu koy wax dañ ne nañ ko reporté parce que dafa am kii élection yi gën a kii Macky euh, Macky lan la lijjanti ki ñu ki ñu ki ñu jàpp benn candidat boo xam ne dafa parjure mais ku parjure kay yaa xay si du mu ngi fee di toog di xaar garde à vie mais loolu kay mooy justice amul crise justice a ngi dox ensemble la mu lijjanti ba dugal euh, ñu nangu ko recevable loolu la ñu wax kii proposition kii projet de la bi ñu tegoon pour lu dàq euh, élection yi du dañ ko nangu kon ensemble ngi dox Macky Sall maa ngi seetaan de tey ci suba laata muy discours parce que yéex na trop ma gis ku muy yéegal chevalier chevalier de l'ordre national du mérite kon ba tey stu boobu mi ngi dox léegi fan la crise nekk yow nga ñëw ne da ngay dàq suñu élection fan nga ko teg fan xam nga liy wax ji mooy man nag wax ji samay wax du neex caaxaan moo baaxul dañu dénk suñu réew koo xam ne dafa taxaw waat wàcc gis nga loolu Karim Wade def tey suñ ko xoolee Macky bi mu taxawee ne je de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal dane woon je faire observer de faire observer dinaa wattu wattulu scrupuleusement yow ñu jox la dëkk ñu war a jëm ci ay élection conditions yëpp réunir yow bu fekkee sa parti moo am crise suñu ngaññi bu fekkee ne Amadou Ba moom nga amal jafe-jafe parce que li ndaw si wax bay tiit naan Gazani ak Abdou Aziz ci Amadou Ba ak ak ak ak ak Macky la gën a jekk te xam na li tax koo xam ne yow yaa ngi ko woo nga war a nga ñu war ko tab waa Benno euh, Moustapha Niass ak ñooñu ñëpp boobu yaa ngi jël sa masque teg xool géej ñi naan daa Covid ak ñee naan nangam ak nangam ngeen dem ngeen daje Kaffrine jox loxo sax defoo ko ko ba ci image yi loolu moo fi moo moo moo moo ci feeñ ngeen ñëw fii war a investir Amadou Ba kin faat place yow dafa mel ni yow lañ doon investir pour gën a wan yow ne yow yaay téye sa parti nga wax ñetti yoon ci kaw Amadou Ba benn yoon la wax yaa ko mujjee wax maanaam Amadou Ba ñu ngi ko sànni nële. maanaam waroon laa fital nga dajale waa APR di leen convaincre ne leen moo ci tane mhm. tane jàngoro jógu fa te dafa am ñaar yoo xam ne nii Amadou Ba daf ci ñëw nga xam ne dafa mel ni lu yàlla dogal la moo tax Macky Sall man am na loo xam ne faraluma ko même bi muy nekk PDS nga xam ne damay safoo waa PDS ku ma xam-xam ne yàgg naa bëgg a wàdd donte ne mosuma ko votel présidentiel bi mu daanoo 2012 laa koy doo ko votel mais ay Idriss Seck ni ñu ma daan neexee ay Habib sa ay Habib Sy ak ay Aliou Sow ay Ousmane Masseck Ndiaye Idriss Seck Macky Sall ak Omar Sarr laa mas a gis ñoo xam ne masuñ maa saf loolu yàllaa ko dogal mais teewut jàmm laa ko yéene te dafa am loo xam ne moom la Cheikh góor gu ñuy wax Babacar Sène waxoon ne Cheikh daf ko masoon wax te man gëm naa li góor gi wax te lam doon wax man dafa mel ni dañoo dem ver loolu te loolu yéenewuma ko Macky Sall faaw ñu waxaat ak moom ñu dellu ginnaaw ci dëkk bi parce que lii jëmul kër gis nga tekk ji dëkk bi yeewoo nii parce que nit ñëpp xamoon nañ ne fi ñu ko fàkkaloon fa lay daanu wax na ko nit ñaa ngi pare ne tekk étincelle bu ndaw parce que leen dëkk te gis nga li gën a bon ci àdduna coup d'état mooy li colonel euh, kii waxoon bi ñu demee seeti Poutine mooy ak waa ji nga xam ne mi ngi nekkoon ONU député wu ministère affaires étrangères bu Mali. li mu taxee ONU li mu wax. wala Abdoulaye Diop. coup d'état du ma wax sax institutionnel wala nangam coup d'état yi président yi di dikki moo tax militaires yi di am pour coup d'état parce que bu fekkee ne Alpha Condé dafa ñëw tripatrie constitution bi yokk mandaam te sañu ko mais bu ko dumb Doumbouya renversé lan moo tax peuple Guinée génn di ko tàcc te ñëpp xam nañ ne dëkk yi bëgguñ coup d'état IBK def la même chose nit ñi di ko renverser nit ñi di tàccu Ali di confisquer ay élection di kii nit ñi renverser ko nit ñi di ko tàccu loolu war nañ ko xoolaat te gis nga petit chef yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay chef de l'État toppoon ci ginnaaw ñoom ab Abdoulaye Wade ak ñoom ay bag Gbagbo ay ñoom Olusegun Obasanjo ñoom tabu Mbeki gis nga ñooñu noonu ñi jàlloon am nañ luñ le muy Wade ak seen concert googu mais lenn lañ xam ni ñu bëggee seen réew bëggee Afrique ñii topp seen ginnaaw bëggeewuñ ko noonu ñii topp seen ginnaaw xaalis képp lañ bëgg seeni soxna di génne ligsi yu du jeex madame Viviane Wado jabaru euh, tabu mbékkeeg ak ñooñu doona leen gis ci mbumbaay mii nga daan gis nit ñi te ñooñu APE yi ñuy wax ak yooyu ñoom ñoo ko daan xeex mm. mais malchance bi Afrique am après mooy ñi leen wuutu après dañoo gën dañoo gën a mel ni ay marionnette France di def lu intérêt France contre seen kii te ñooñu lañ naan ñoo ñëw après l'indépendance te ñooñu la démocratie indi démocratie bi leen indi ñu tripatouiller ko taxaw ci biir gis nga élection xam nga la moo tax Macky Sall légitime man mm-hmm. a toog soxla avion présidentiel ñu jox ko bu bakkane muy bànneexu Cheikh Yérim nag am na lu mu wax bu yàggul man moom kooku lu mu wax damay bind kàcc ci wet gi ba gis lu ko dëggal parce que daf ne ah, dafa toog ak ma dafa taxaw ak Macky Sall ci oto voiture blindée bi mu ne ko de la gars yi di kii lii dong lañ ma soxoree xeet yu demee noonu maanaam lii dong leen tax di jóg seen bopp maanaam pour lix bi ma déggee loolu ma ne waxi seex yi yërëm ji bu dee dëgg la maanaam mooy Macky Sall moom daa ñëw di nguuru maanaam parce que nguur lix jënd avion bu bees. mais est-ce dem ci condition yoo xam ne non non bien waaw mais condition yooyu bu ñu la ci tegee. ak lu mu taaru woon taaru na nekk oto bi jamaa li nga war a gis mooy peuple sénégalais bi la ko doxal waaye waroo gis nguuru oto bi a nekk. maanaam li Cheikh Yérim wax te solu ma ko de boo demee ci débat bi bu mujj moom may mën bul fay dane Macky Sall ne ma lii la gars yi wax manaam lii nii ne ko bu ñu àndoon fii maay jàll de doo jàll de ne ko président duy caaxaan d'accord mi ngi mel ni jigéen ñooñu xam nga suñu jigéen ñi gis nga ko nii ni mu sañsee ni macha allah yaa ngi gis muy xool seet bi ak yooyu maanaam gis euh, liñ ko jëndal or affaire yooyu Macky Sall fait la même chose non damay joxe exemple rek gis d'exemple fait la même chose parce que bu fekkee ne dañ laa mën a defar jox avion dañu bëgg pour nga mën a dem dikk liggéey tey soxla sénégalais yi suñ lay xaalal dañoo bëgg nga gën a gaaw yow loolu tege say wagg bu fekkoon loolu rek nga xool nguuru woo mm-hmm. mais malheureusement ay petit chef la ñu am amuñ de grands leaders très bien alors euh, Pape Amadou euh, ñu ñëw ci yow rapidement euh, parce que y a une relance boo xam ne moo concerne la décision